lu jëm si wàllum népotisme boobu déjà euh, ñu gis ni ñu fësal li nga xam ne moo di euh, benn communiqué pour fësal seen euh, composition cabinet ban jàngat la ñu mën a def ci ci ci loolu nga xam ni door na ci 81 nomination yi nga xam ni def nañu ko le mercredi. waaw xam nga ñoom. Mm. fësaluñu sax communiqué. Mm. par exemple ci lu jëm ci Serigne Gueye Diop par exemple ak ministère bi mu yore moo tax ma doon wax sànq gis li li ñu wax leeral bi. gis na boo leeralul xam nga yaa ngi naan l'information est disponible mais malheureusement xam nga lan moo xew tey euh, ñuy te ñu bëri constaté nañ ko autorités yi ñu fi nekk nii fi ñu toll nii qui était très accessible même ci téléphone mais jot a tooleem pour mën a am information wala pour mën a vérifier information ñu ngi wax ci Serigne Gueye Diop on nous a ci biir réseaux sociaux yi arrêté bi nga xamee ni moom moo génne woon ci. ña ñu fal ci cabinet pour peut-être taire cette euh, polémique qu'il y depuis quelque jour ñu naan diw frère am laak diw jarbaatam laak yu mel noonu euh, mais loolu man jàpp naa ni am na moment boo xamee ni boo bëggee nit ñi mën a jublu ci liggéey boo waree leeral da ngay leeral ñu ngi wax El Malick Ndiaye naa ni ministère am da cee jël ñiy sant Ndiaye ñuy sant Ndiaye moi j'ai fait des recoupements pour savoir que amu ci leen lu ciy dëgg et je l'ai dit hier peut-être ci guddi pour dire que wax nañu nangam ak nangam waaye ci jama xam ña fay liggéey ak ñeneen jox nañ ma une information boo xam dama ci basé gum en attendant comme moom ci boppam mais on est en politique aussi c'est vrai ministre nga ci li naan euh, amoon temps wu di tontu chaque fois que ñu wax la dara d'accord mais am nga cabinet boo xamee ni war nañ mën a indi même un communiqué pour euh, éclaircir Euh, la lanterne de sénégalais pour leeral li ñi ba nga xamee ni keneen ku ko wax tamit foo mën a jógee nekk ci opposition comme li ngay wax sànq di wut yeneen i euh, prétexte dañuy dem ba doot dañ lay soofantal ndax dañ naan ni kii la muy wax pourtant indi nañu beneen leeral ci lu mel noonu mais man la ma jàpp mooy ci wàllu euh, li ñuy recruter ak ña ñuy ña ñuy ña ñuy jël ci conseil des ministres walla ci Euh, yenn ci ay euh, ministères ci yenn ci ay directions appel à candidature boobu dañu ne ci biir projet bi dinañu procéder ci appel à candidature pour certains postes mais nañ ko baral certains postes yooyu am na ñoo xamee ni tey mais tey nañ def appel à candidature ñu ne par exemple pour kan moo war a jiite leeral mm-hmm. mais peut-être que Thiala mën na indi CV ak expertise am ne li man mën naa jiite leeral peut-être que euh, Omar wala keneen mën na ñëw ne ni man am naa ci wàllu expertise wala ci CV lu mu mën a jiite ñu teg ko sur la table bu ñuy tànn ñu ne am na trois yoo xamee ni sur sur les quinze trois yi jàpp nañ ni war nañ mën a jàll léegi nag bu boobaa président mën naa am kiiw boppam ne ni génne nañu sur quinze trois yi ñoom ñooy ñi ci ñi ci ñi ma jàpp ni euh, ci li ñu def mën nañ cee bokk ma jël ci trois yooyu ma tànn ci kenn parce que boobaa li naan eh, li ko constitution may moom rek lay def ndax moom mooy namee ci poste civil ak militaire loolu la ko constitution bi may mais gis nga mbirum népotisme dañ ko xeex wax nañ ko ci maître Abdoulaye Wade wax nañ ko ci Macky waxoon nañ ko sax ci Abdou Diouf tey bëgguñu ko waxaat ci ñii fi nekk Euh, te pour loolu foog ñoom ñuy leeral également leeral boobu ala kulial faw ñu indi ko pour éviter tout ce débat la qui à mon avis n'a même pas de sens compétence d'accord mën naa am compétence boo xamee ni mais je me suis battu peut-être avec le Pastef ou Diomaye président su ma amee compétence ki nga xamee ne mosul dugg ci terrain bi wàcc ci terrain mosul yenu xeer mosul mosuñu ko sànni xeer mosul lakk mosul am dara lacrymogène fekkewu ko sax peut-être mu ngi woon bitim réew mais bu ñuy tànn wax dëgg fa na yàlla dinaa tànn ki nga xamee ni moo doon xeex ak man am compétence ak CV boo xamee ni euh, bu ma koy jël di ko peser sur la balance ak ki nga xamee ni musul def ak man dara mais kooku laay jël ay la yëwan nag bu dee waxante dëgg loolu moo fi ma sa am la preuve da ngay ñëw ñu ne euh, jël nañ diw ministre la mais ay mbokkam ñooy ñëkk commencé fecc dafa def tànn biir parce que dañuy jàpp ni lépp sotti na léegi loolu la ñu war a dindi ci xelu sénégalais nekk nga directeur rek euh, félicitation félicitation félicitation koo gëjoon dégg sax message la ndax ma ngay njort ni peut-être directeur bi ñu la def euh, chauffeur la am na permis de conduire war nga maa mën a woo en tant que man sa mbokk war nga maa jox poste chauffeur bi wala euh, jël benn oto jox ma léegi da nga may recruter la preuve ba ci ci lii ñuy liggéey nii Birahim Touré denk nañu ko leeral ci rajo beeg télévision bi da ngay gis ko xam ne gëj nga ko dégg ça fait des années moom message la wala mu woo la wala mu yónnee la CV naan la da nga maa fàtte man la diw <laughs> te doo ci mën absolument rien du tout parce que du ñu xam réalité du pouvoir boobu du ñu xam réalité wu entreprise bi. ne ni peut-être que am na benn position boo yore mais sa position ba nga yore mun laa permettre sur le plan peut-être financier nga mën a recruter nit wala nga mën a defal nit mais nit dina la ci mere. Hmm. tout simplement parce que dañuy jàpp ni non yaa ngi ci position waroon nga ma ci mën a euh, dimbali alors que xamuñu ni position bi nga ne et c'est valable pour le ministre c'est valable pour le directeur c'est pas parce que je suis ministre ou je suis directeur que j'ai je peux recruter à tout de bras ku ñëw rek man la kaay ma recruter dafa am ay normes yooyu ñuy recruter mm. je vais pas recruter n'importe qui moo tax lan moo fi moo fi indiwoon ay chargé de mission parce que day leer na ñii mënoo leen dugal ci sa cabinet en tant que conseil technique wala conseiller en communication wala euh, DAGE wala nangam ak nangam. Hmm. mais il faut que nga wutal ko fenn foo ko dugal pour mu mu la peut-être euh, may jàmm comme on dit nga jëkk ko def ko chargé de mission boo xam ne doo ko mës hmm. mission. doo ko mës a yoon mission chaque fin du mois mu jot salaire wala mu jot weccet bu muy bu muy yóbbaale loolu moo war a dañ. c'est-à-dire hmm. que yenn yooyu sax man su changement systémique qu'on enlève tout ce ay chargé de mission. envoyé spécial on peut comprendre ministère bi ñu ne la par exemple amoon droit wu dépasser deux chargés de mission parce que peut-être dina am loo xam ne soxla nga ko par exemple ne la waaye ci sa cabinet am na ñoo xam ne mais réorienté leen am na ñu nekk ci cabinet yu ministres yi wala directeur yi mais qui ne font absolument rien du tout wala pas pas grand chose lan moo leen ciy neex mooy taal leen seen oto ñëw ubbi leen seen bureau toog taal seen climatiseur mm-hmm. ndekki añ bu ñu paree dem ñibbi peut-être mm-hmm. sañe benn mbir wala ñaari mbir c'est terminé mais tout ça changement systémique bi ñu wax. Mm-hmm. moom il faut que lépp lu ñuy def que visibilité boobu mën a am. Mm-hmm. transparence boobu mën a am. pour coole bañ a bari. d'accord pour pour le cas de de Serigne Gueye juste Birahim ñu préciser que euh, arrêté bi ça date euh, suma juum le 11 juillet aujourd'hui ñu fësalaat ko peut-être pour démentir par rapport ak euh, information yi. Euh, distiller ko dans les réseaux sociaux comme on a mis dans les réseaux sociaux que euh, mhm. diw jarbaatam la diw te arrêté bi CTI la joxe au nombre de six mais fii la réalité également mooy que di nga nommer nit wala nga jël nit mu nekk ñu koy gis ak yow chaque jour te duñu mën a wax lii mooy fonction bu fin du mois jotee nga seet loo teq ci salaire jox ko mais ça aussi nag pour gën ko euh, pour dindi ko mhm. mais nañuy leeral c'est pas autre chose. népotisme monsieur Diallo bi ñuy wax actuellement jëm si nomination yi nga xam def nañu ko euh, très récemment ñu gis ne également euh, jur na jur na coow maa ngi koy wax sànq peut-être ñi ngi doon.